ay fan rek des ñu daal di tàmbale li nga xam ne mooy campagne électorale bii waaye tamit daal di euh, tabb ki nga xam mooy njiitu réew bu yees loolee dina am ñaar fan ak juróom ci weeru février waaye laataaloo rek jamono ji ña nga li nga xam ne mooy parrainage yi ndax loolee daal nekk la lu metti am ñoo xam sax dafa leen mujjee soofa waaye première épreuve nag moom jamono ji ca conseil constitutionnel lay amee contrôle ak saytuk li nga xam ne mooy dossier yi nga xam ne mooy neer candidat ci candidature bi ñoom nag ñi ngi ci njàqare waaye am ñoo xam ne tamit daanaka sax darañ xaarul leen ci waaye ñu bëri bëri jamono ji nag dañoo tiit tiit ndax gis nañ ne ñu daal di bedd si ay parrain loolee tax na daal ñu bëree bëri kat ne juróom-ñaari sages yi seen liggéey kat des na gën a ñoŋ ñoo xam ne am nañu sikki sàkka ci wérteg fichier bi maanaam ñu bëree bëri gis nañ ne kat seen candidat da mel da leen a dóor am ñoo xam ne sax dafa mel ni sax contrôle parrainage bi dang moom sonal na leen waaye naam sax yëngu-yëngu am ci loo xam ne duñ ko yaakaar am ñoo xam ne kat daañu xam am ñoo xam ne daañu kontaan wala am ñoo xam ne kat mbettel ci am waaye ak lu mën dana fexe daal ba nga xam ne mooy ñuy ŋawte ŋawtee mooy coowal parrainage bi dina gën a bëri lool kenn mënta xaar jeexital gu bon gi nga xam ne nan na koo am waaye lu mënta xew daal campagne électorale bii ngi nag moom lu wérte wóor lay am ak li nga xam ne daal mooy lëkkaloo ci candidat yi ak li nga xam ne askan wi ndax askan wi ñoom seen bopp ñoom daal di voté ñoom seen bopp daan dem ca maj gàcc ya waaye tamit séisme électoral dina am naam waaye loolee sax ci la gën a yaakaar mooy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février waaye tamit lañ ca tiit mooy ñu bëree bëri campagne ni ndax yëngu-yëngu boo deful nànk dina gën a transformé li nga xam ne kat mooy ci askan yëpp ci taarix Sénégal électeur ñoom ñu dem voté ji waaye ñu bëree bëri bu ñu banquee seen loxo loolee du baax ndax ca campagne bi ak ca mañ gàcc ya kenn du fa ne